xam am na. Ibrahima Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, soxna Moreau. voilà Ibrahima Fall nga nekk secrétaire permanent national bu Celso Authentique secrétaire général section Dakar élection de représentativité syndicale yi euh, ci wàllum enseignement dinañ ko amal ci 6 jàpp 13 mars naka nga ko daal di euh, gisee naka la processus bi di demee actuellement. waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu sa auditeurs yëpp. di rafet euh, rafetlu ci vraiment invitation bi nga ñu defal waaw élection yi de euh, ni ñu ko gisee tàmbali na processus bi démarré na depuis euh, quelque temps jamono bi ñu toll ñu ngi nekk ci fa def nañu publier nañu liste fichier électoral bi tey jii ni ñu may wax ak yow ni phase test bi commencé na tey di jeex la le 23 donc processus bi démarré na réclamation yi ku ko mën def nañu ko def ci fañ toll yi Euh, donc euh, élection yi euh, mi ngi am le six au treize comme ni nga ko waxee sànq si njëlbeen élection yi nag cette fois ci lu ko wutale ak yeneen yi mooy électronique la waaw dañ koy vote électronique maanaam ci sa portable wala sa ordinateur boo ci toogee rek nga dugg ci plateforme Mirador bi nga duggal sa matricule sa mot de passe nga accéder ci plateforme bi nga daal di mën a nga daal di nga daal di wote liste bi nga xam ne moom nga bëgg a wote. mais am na ñu wax ci syndicaliste mode nga siy tontu. waaw euh, euh, li may tontu moom comme li ma la wax léegi nag amul ci àddina daal defe naa amul lenn loo xamante ni moo fiable à cent pour cent donc le mën li nee perfectible dañ koy jéema a parfaire. Mhm. loolu moo waral suñu teewaay ci commission électorale nationale pour ñu mën di saytu di xool. li fi mën di nekk def nañ élection CAPCD yi euh, yaa ci ñetti weer ci ginnaaw ñun ci lañ nekkoon ba ñu demee tamit dem nañ ña gañe gañe nañ am nañ seen commissaire ña nga xam ne di gañe wuñ xam ne gañe wuñ donc mu newoon loo xamante ni teg nañ ko ci yoon ci plateforme yi ñu ko doon suivre bii tamit noonu la euh, tey jii may wax ne test bi commencé na ku ci dugg yaa ngi xam ne wote nga wala wote woo boo wotee ci test bi nga xool ñu defal la prise en compte donc te nit ki mënta wote waat ñaari yoon donc loolu la li ci des nag mooy euh, tey bu ñu defee test yi du vingt ba le vingt trois mhm. jafe-jafe yi nga xam am na ak lënt-lënt yi nga xam ne war nañ ko ñu gis ñun en tant que membre comité suñu base le six a Euh, elle euh, perfectibilité amul donc toujours daal dañuy dañuy tendre vers donc te loolu la donc dañ ko war a dañ ci war a jëm donc ça facilité et puis dafay dimbale ba nga xam ne jàngalekat yi. Mm-hmm. da nga daan jógee benn euh, urne bureau de vote fa mu daan nekk ak ngay liggéeyee da daan sori ba nga xam ne pour nga dem wote ji da daan poser da daan poser problème. mais léegi ñaata syndicat ñoom ñoo bokk ci élection bi. te o finish eh. ñaata la ñuy pour ñuy waxtaan. ak élection waaw ah, élection yi comme ni nga ko waxee euh, ñaar fukki syndicat ak ñett ñoo nekk ci collège préscolaire élémentaire beneen collège yi mooy moyen secondaire am na ñaar fukki ñett syndicat ñoo fa candidaté euh, corps de contrôle yi mooy inspecteurs yeeg yooyu ñoom tamit juróomi syndicat xaw ma juróom benn ñoo fa nekk euh, ci lool loolu moo nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ci élection yi maintenant Sels authentique naturellement ñun candidat lañ ñu ci collège yëpp incha allah rabi di ciy compétir di dàq di jéem a ana jàngalekat yi jàppale ñu pour a am représentant bi ñu amoon toogaay bi nga xamoon amoon nañ ko ci ati wees ñu mën ko mën a dëgëral. Mhm. élection yi nag pour que yi war a jàll nag. Mhm. mooy képp koo xam nga am nga dix pour cent ci électoral bi. rek da ngay représentatif. d'accord au final ñaata lay nekk maanaam la ñuy amul amul amul amul quota amul nombre dañ ne ko am dix pour cent rek. bu jàngalekat yi jox dix pour cent de voix dix pour cent ci taux bi rek yow da ngay jàll d'office. léegi yéen euh, seen côté ban bilan ngeen def ci mandat bi weesu. mandat bi weesu ñun dañ koy rafet déjà bilan bi ci am mooy lu historique li am mooy avancement bi nga xam ne jàngale am nañ ko ci seen payoor te ñu yëg ci seen bopp lool. am na maintenant nag new la dañuy doylu dañu bëggaat mu gën a yokk parce que dañu ne woon revaloriser revaloriser nañ régler équité moo gënoon tax ñu jóg waaye bañ defee équité bañ ne dañ ko écart bi ñu équité ko gis nañ ne nguur gi tamit yokkalaat na ñeneen ñi donc loolu dana indiwaat débat war nañ ci taxawaat ñu waxtaanaat ci ñu xool question yu décisionnaire yi ñu ci liggéey bi am décret bu nekk circuit bi mais ba léegi génnagul donc loolu newul lu ñuy rafetlu donc ñu wàcc taxaw euh, lenteur administrative yi mu ngi fi donc loolu war nañ ci taxawaat donc di nga xamoon daal sumboon nañ ko ci lu baax ci revalorisation yi mu taxaw ñu li nga xam ne des na nag moom lañ bëgg maintenant suñu euh, enseignants yi tool doole ma joxaat confiance ñu mën a àggali liggéey boobu noonu auprès avec le ak ñoom ñun ak ñoom ak euh, en face du du gouvernement. Euh, ñenn ñi dañoo jàpp ni Ibrahima Fall élection yi ak syndicat yi war a waxtaan ak nguur gi nguur gi rek mooy xool méthode bi nga xam ni daf koy mën a contrôler yi lu ngeen siy tontu. méthode boo xam ne. dañuy gën a mën a contrôler wala sax di corrompre syndicalistes yi. waaw xam nga loolu euh, pour man gis-gis la rek ku nekk position bi nga nekkee da ngay gis-gis la surtout nag ñu nekk ci période élection ku nekk yaa ngi am nooy nooy taqale sa sa sa morom mais gis-gis la en tout cas ñun lu ñu lu ñu soxal mooy intérêt travailleur donc corruption wala jéem a tenter corruption je pense que c'est c'est vain c'est c'est peine perdue donc euh, on va porter la revendication des enseignants on va se battre pour ça l'essentiel nañu am nañu base bi liñ ñu wax ñu ànd ak ñoom xeex ko ñu dem te gis nañ ci li nga xam ne moo am ci at mi defe naa ne jàngalekat boo xool bulletin de salaire am ci euh, ci at mi war nga xam ne gars yi am na lu ñu teg donc nag di ñaan nag ñu jàppale loolu mën a gën a yokk parce que dafa war a gën a yokk parce que enseignants yi mérite nañ loolu Euh, Ibrahima fi ñu toll nii ñu ngi ci njeexitalu mois de de février. mel ni nag année bi bëriwul yëngu-yëngal euh, kon dafa mel ni seen seen seen jàngoro yëpp nguur gi saafara na ko seen i jafe-jafe. ah déedéet jàngoro yi fajul lépp saafarawul lépp. Hmm. Euh, en tout cas mooy ñun ñii di SELS ONATRIC déposé nañ préavis de grève le 6 janvier bi passé préavis boobu noonu nag lañ ci dëgmal mooy am na question yoo xam ne entamé woon nañ ko waxtaan nañ ci bi am jàppoon. ba léegi réalisé wuñ ko muy question décisionnaire lenteur administrative yëngatuwul euh, DMC bi ñuy wax ni ba léegi dafa yéex excellence nañ ko waaye yéex na kenn jotagul dara donc boo ko jëlee ci loolu euh, recrutement enseignants yi des na boo demee école yi gaa ngi ci euh, multigrade yi double flux donc la qualité donc loolu ñu ngi ciy wax abri provisoire yi ñu ngi ciy wax donc programme bi aussi ñu ngi ciy wax donc mu nekk ay questions yoo xam ne ñu ngi ko posé donc déposé nañ préavis bi nag expiré na. déggaguñ nag nguur gi woote incha allah rabbi li ci war na incha allah bu jotee danañ taxaw. Euh, jël jël jël position wax dëgg yàlla incha allah. naka nga gisee en tant que syndicaliste au conseil du dialogue social est-ce que pour yow am na njëriñ amul njëriñ. waaw au conseil du dialogue social xam nga ñun euh, syndicat de branche maanaam boo jëlee ñoom central la ñu gën a liggéeyal ak ci entreprise yi. donc ñu ngi dox ci dialogue social pour xool lu ñuy wàññee crise pour mën a anticiper euh, ci loolu nag ñun am na comité de dialogue social branche éducation boo xam ne mu ngi liggéey aussi pour rataxal diggante bi entre enseignants yi ak ak nguur bi Euh, beneen laaj moom mooy ni gi ni euh, 21 février bi euh, la ñuy màggal bés bu ñu jagleel wàllum langue maternelle euh, tey ji langue maternelle ci éducation fii ci Sénégal ban gis-gis nga ci am waaw gis-gis bi langue maternelle je pense que débat la boo xam ne yàgg na alphabétisation langue maternelle yëpp ñu ngi ciy wax donc je pense que loolu yëpp duñ gëstu yu wane na ne jàngale ci sa euh, làkk bi nga nàmp moo gën a gaaw ci xale bi ci lay gën a comprendre du def ñaari liggéey parce que xale bi nga xam dafa nàmp ci la euh, langue pare ñëwaat école ñu koy jàngal nasaraan langue bi mu naam day defaat beneen effort pour comprendre langue boobu beneen effort maintenant pour mën a pour mën ci liggéey alors que bu doon ci langue bi mu bi mu nekkee la day yomb ci moom day nekk loo xam da koy dafay faj donc mu nekk loo xam ne lu ñu war a def la. Mhm. maintenant nag euh, yéex na peut-être euh, bëri na ay yoo xam ne c'est des questions peut xam naa ne politique wala stade lu mel daal lu ci mën di nekk daal ñëpp euh, nangu nañ ne borom xam-xam yi nangu nañ ne njàngale ci langue maternelle. moo gën a am njëriñ foofu ci ci euh, ci ci xale bi. mais mais pour yow lan la nguur gi war a def exactement. pour lu mel ñu appliquer ci école yi quest mhm. waaw nguur gi li mu def mooy mooy jublu ci loolu. waaw jublu ci loolu parce que dina mën a tax. Euh, question euh, langue bi ñu gën ko mën a mën ko mën ko développer parce que moo gën a yombal xale yi euh, compréhension bi njàng njàng tey jii boo doon noté Cheikh Oumar Anne ministre de l'éducation nationale. waaw fi mu toll nii day ñun ñun mënuñoo apporter benn notation ci Cheikh Oumar Anne. parce que hmm. euh, tàmbali na. am na yu mu jot a rang bi ñu organisation syndicale yi euh, wax na programme feuille de route am euh, wax na yéen yu mu bëgg a def. ñun tamit wax nañ ko yu ñu ñu bëgg ak yi nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom donc euh, ñu ngi koy euh, ñu ngi koy suivre léegi maintenant au moment opportun incha allah rabbi dinañ mën a taxaw euh, taxaw seetlu xool bi mu jëlee nombre tank yi ak la mu jot a wax. ak lam ci jéego yum ci def boobaa dinañ mën a def indi appréciation concrète si sax. Hmm, Ibrahima xanaa seen yëngu-yëngal yi da ngeen a bëgg a bàyyi ba élection de représentativité yi weesu wala lan la parce que enseignants yi dafa sedd te nee ngeen revendication yi des na. non xam nga euh, revendication yi ñu ngi fi te dafa am nu syndicat di doxee. waaw doo tëb rek bu sa préavis jeex grève jeexee préavis. Mm. ngay déposé ci nguur gi ba préavis bi jeex. Mm-hmm. bu nguur gi woo la ngeen waxtaan su la wooyul ngeen waxtaan nag nga doog a mën a commencé nag jublu ci li nga xam ne mooy plan d'action wala nga wax euh, informer camarades yi mën a jublu ci xeex bi donc loolu boo fa tollul mënoo tëb rek euh, yoon dafa am mënoo tëb rek nga neex la neex la nii rek nga ne ay ci dem ci. nañu dem ci mbir mi donc du doxee noonu dafa am yoon. voilà Ibrahima réew Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi leen di gërëm di leen di sant bu baax. Euh, voilà ñu lay remercier bu baax ci sa disponibilité di fàttali yow yaay euh, secrétaire permanent national bu Sels Authentique secrétaire général section Dakar merci beaucoup. merci